ni que mairie bi defee le chef de l'État woté ko nonou ñun aussi tay ñeu indi suñu modeste contribution donc euh, avec le président de de l'ACRAB ñu fas yéene daf ben acte moy daf ci outils là qui permettront au moins à tout un chacun ku génn dëkk bi bay dugg ci nga wara mëna mën say loxo parce qu'on constaté ni mbir mi légui ci génn bi lañ koy jëlé gannaaw bu ñu lancer appel nit ñi ñu tok seen kër.

mais également suñu borom balaa mu la mëna natou rek nga dëgër bop alors lo xamanteni nak yalla yàlla doog ko santaane ñun nañ ko def té sax dañ ci jittone di raxas suñu loxo ñuy wo askan bi yëpp ne ko wajuri gëna gën a opération bi nak dañ ko def depuis un mois bi moy la quatrième semaine ñu tuddé ko les volontaires du progrès action 6 parce que le monde aujourd'hui est dans des initiatives citoyennes de développement humain et social alors euh, ñi ngi remercier nak le maire de Anne et son conseil municipal parce que bi ñu tàmbalee ba légui ils n'ont ménagé aucun effort di ñu soutenir ci lépp loo xamante ni ñu ngi koy yëkkati alors nous nak nous sommes une organisation sociale de base qui théorise le développement de la base au sommet ñun dañu ne fi suñu maire jotewul ci askan bi ñun ñu motalil ko fofu ñun suñu loxo fi mu jotewul ci état bi mom mu jotal mu jotali ñu ginnaaw loolu nag vice président conseil de quartier bu Hann teewe woon na ko te di ko rafetlu ak kenn ci magu dëkk ba ba noppi di ñax askan wi ngir ñu gën a mucc ci bile jàngoro. depuis boobu ba léegi ñun ñu ngi ñoom ñu ngi dox di sensibiliser di waxtaan ak nit ñi di def ay actes ya nga xam ni ay actes yu rafet la donc lii nii aussi bu ñu ñëwee def ko jël euh, yi yëpp.

dem ba yombal xeyam du fi ñew tamit amul yalla yàlla musal si beneen feebar bu fi dugal nak fi ba yomal xiyam Matar Diaw di 1er juin au maire bu Hann di deugal liggéey bu muccu ay bi waa xab di amal ba nopi jébbal leen enveloppe bu ñen fukki junni bu leen maire bi dimbalee ci bile xex nous sommes en guerre sanitaire comme l'a dit le président de la république boy dem guerre sanitaire nak da ngay am un comportement sanitaire lan moy comportement sanitaire moy taxaw bay mesure d'hygiène yi ñuy wax yépp nga respecté ko kon CRAB lool la xam. CRAB bi du première initiative am ay góor lañu ak ay jigen ay ndaw surtout mais bu mu juddok léegi bo xolé sen bilan bilan bu positif la ñun en tant que maire vraiment dañuy rafetlu lolu bu baax baax c'est la raison pour laquelle jappalé leen parce que bobu ba motax monsieur le maire jël enveloppe bu deux bi ni mën naa ko jox président ne ko nak première démarche la parce que démarche bi ñuy def dañ koy def ak Croix-Rouge dañ koy def ak badjenu gox yi dañ koy def ak structure sanitaire yi dañ koy def ak daara yi dañ koy def ak daayira yi ñëpp dañ koy defal mais nee na aussi itam ñu lancé waat beneen message au nom de la population de Hann bel mooy lan mooy jël lépp lu ñuy def ñu ngi ànd ak suñu sago ànd ak dal am na ndimbal yu nga xam ne si aussi itam dañuy ñaan yàlla genre ndimbal bi nag kenn bëggu ko bu doon suñu sago mu yam fi tey mbas mi ñu xeex daan ko mais nee na aussi itam moom ak conseil municipal am ñu ngi préparer pour gën a jàppale population bi. waa CRAB def lu am solo ci wàllum xeex jàngoro ji di Covid 19 ba tax ñu def ay jumtukaay ngir askanu en Bel-Air ak képp ku fiy dugg ñoom nag ñoo ngi ñaax askan wi rawatina waajur yi ngir ñu gën a am seetlu ci xale yi.